asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziara fas yéene ànd ak yéen ci journal du Magal yoo xam ne dañ koy fas yéene baaxee mbokki téléspectateurs yi ñuy xam lépp loo xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké ci diirub Magal gi avant pendant et après le Magal xibaar yi nag tey ji dañ koy dooreek euh, ndaje mi nga xam ne amal nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul jëm rek ci wàccaayu Magal Touba édition 2019 ndaje bi nag ki nga xam ne moom moo di euh, le ministre de l' intérieur Aliou Ngouye Ndiaye moo ko jiite ànd ko comité d' bu màggal gi di Serigne Bass Abdoul Khadr ak mboolem commission yi ak chef de service yi ñu doon nataan nag mboolem disposition yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko ci màggal gi fan lañ ci toll loolee ginnaaw ndaje mi am na kàddu yoo xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr yëkkati na ko mu jëm ci li nga xam ne moom mooy matuwaay yi ñu war a jël ci màggal gi waaye respecté gu ñu war a engagement yi nga xam ne saa su ñu koy jël ci mim dëkk muy Touba Mbacké ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul ndax màgget gi day xew-xew bu rëy boo xam ne kenn waru ko woyofal wala nga négliger ko ndax euh, Serigne Touba toll noonu ci réew mi màgget gi it am dayoo bu budul woon ak li muy dugal ci réew muy xayma xam ne waxuma la muy feet boo xam ne day indi personnel ci réew mi waaye njëriñ lay indi réew mi bu tolloo lépp itam nit ñi ci daje rek. ngir gëm-gëm te dëkk ci réew mi kon loolu waris na koo gën a joxaat yitte mu bañ a nekk rek réunion yoo xam ne daje rek lay doon te dara bi ci juddoo ndax loolu baaxut kon ñi ñuy yabal itam war nañuy gën a bàyyi xel ci seen kilifa yeneen yónni ndax li ci ëpp ci ndaje yi dama seetlu mooy ñi ñiy teew duñu mën a jël benn décision daanaka boo waxee dañ danañ ko jot te buñ dellusiwaatee ne ñu ngi digloo comme loolu loolu itam faw ñu sóoraale ko gën ko bàyyi xel kon wàllu ndox mi itam daaw ministre bi ko yoroon defoon na ci ñeenti forage ren ji itam def na ñaari forage kon loolu lu baax la ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm waaye kon euh, maa ngi koy yóbbante la ministre Aly Ngouille waxtaan na ci moom léegi mooy li ëpp solo mooy réseau bi ndax réseau bi dafa yàqu ci biir Touba ndax am na ci yoo xam ne 1960 la fi nekkoon ba léegi ni nga xam ne li ëpp ci ndox mi day delluwaat ci suuf ta ndox mi rek xam ngeen li ci xew ndax ndegam dëkk bi du fay dox loolu moo ci indi jafe-jafe waaye forage yi fi nekk ci ñi xayma wax ne ne mën naa yor Touba ndax ci ginnaaw amoon na loolu juróom forage yu pan waaye. ñoom bi ñu ko yëgee fexe nañ ba forage si yëpp gi dox fi mu toll nii benn forage panut kon wenn na forage ci benn dëkk bu dëkk mënta am ndox kon amul lu ko di loolu rek eh, yaakaar naa laaj na xalaat yu xool yoo xam ne ministre bi wax na ko ki yor jiite ma u rahmati wax na ko xalaat yi nga xam ne bu ko ci defee dara doon jëriñu ñëpp ndax bu fekkee am jot ñu jën bënn ñaari forage wala ñetti forage te ndox mi du sotti ko suuf it amul njëriñ ñoom itam liñ ci def bari na liñ ci def ci at mu jot daaw rek def ñaari milliards ren def nañ ci lu bari kon bu fekkente ne saafara yi lay jafe-jafe ba dëgg du am njëriñ mu nekkoon kaddu yi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir yëkkati na ko ci ndaje moom waaye ginnaaw bi ki nga xam ne moom moo di euh, le ministre de l'intérieur Aliou Ngouille Ndiaye am na kaddu yoo xam ne yëkkati na ko moom it mu jëm ci mboolem disposition yi nga xamante ni jël nañ ko ci màggal Touba ak rawatina màggal gi nga xam ne dafa tombeek jamonoy nawet loolee lépp euh, ki nga xam ne moom moo di Aliou Ngouille Ndiaye yëy na ci yàbbi ñu ànd teelu kaddu yi nga xam ne Aliou Ngouille Ndiaye yëkkati na ko ci ginnaaw moom leen ndaje sécurité maintenant plan de circulation bi préfet expose na ko rapidement danañ ko commencé doxal du 13 au 19 dañ ko commencé doxal le 13 mu war a yegg le 19 peut-être que baax na nag ci diggante bi ñu communiquer ko donc je pense que c'est bien ñu def communication avant le avant le 13 comme ça nit ñi xam fi ñuy jaar bu ñuy dugg Touba. quelque que soit bunt buñ jaar ak bu ñuy génn Touba bu màggal gi jeexee incha allah bon wàllu Ageroute c'est vrai que bari na fi point d'intervention yu ñu fi war a identifier ñoom ñu def ko mais Ageroute rassuré na ne liggéey bi dana yegg balay màggal gi y compris traversée bi nga xam ne bii effort soxla na ko pour mën a assurer le maillage donc loolu aussi jàpp na ne xel mën na ca mais quand même on va toujours le suivre te wax comité bi mu koy pour que ñu mën a atteindre objectif bon du côté du point de vue médical je pense que disposition yi nga crainte yi ne amoon yëpp jël nañ ko en charge comme également du côté de la brigade d'hygiène au niveau de l'assainissement pour les eaux usées bon on va prendre les comme le l'ONAS s'est engagé pour que bassin yi aussi bien que ça soit à Kàdd comme Mbàkke ñu mën a assurer que dina mën a jël ndox bi fa war a ñëw maintenant pour jéem a atteindre le l'objectif de deux mille quatre cent rotation qui était prévu ñoom danañ xool ak entrepreneur bi pour que ñu mën a yokk nombre camions yi ndax ñu mën a atteindre objectif bi deux mille quatre cent rotation yi jàpp naa ne c'est possible bu ñu ko teelee jóg pour effort là aussi donc. Euh, secours forage yëpp am na réseau bi am nañu yaakaar ne vingt neuf forage yëpp dina fonctionner euh, maintenant mu des un point de préoccupation muy wàllu inondation yi parce que ba léegi am na ay point bas yoo xam ne yii malheureusement le seul moyen c'est pomper avec des hydrocureurs dem yóbbu ndax amul déversoir ça aussi je pense que peut euh, au niveau de la direction il faut essayer de voir une solution qui puisse être quand même parce que point bàyyi moom mënatuñ koo toxal mi ngi fi il faut xool un système qui permet peut-être un système d'évacuation plus opérationnel que lii def actuellement je xibaar yi dañ koy wéyal fii ci Touba Mbacké mu jëm ci màggal gi nag fi nga xam ne moom moo di les grandes expositions bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ñoo ko fiy taxawal at mu jot ci buntu kër Cheikh Modou Fadal Mbacké loolu nag door nañ ko ñeenti fan ci safar day wéy ba. fukki fan ak juróom eh, ci safar loolu nag nekk na lool Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides demoon na fa nemmeeku boobu la liggéey mu nekk taxawaay boo xam ne eh, bu am solo la mu eh, ñi nga xam ne ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah ànd ko comité d'organisation bu màggal gi waaye nag mu jëm ci exposition boo xam ne wàllum xam-xam lañ fa exposé waaye dafa amal ay conférence yu am solo loolu nag ginnaaw visite bi Serigne Mountakha Mbacké Bachir sant na daara Hizbut Tarqiyyah ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa daayira Rawdu Rayaahin ñu ànd teewlu kàddu yu xalif général des Mourides ba mu ñu xamee moom Hizbut Tarqiyyah ak ñoom ci la ànd ak ñun booba na boobu dafa daan wax ne jëmewuma leen mu ànd ak ñun ci loolu mu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci loolu ba am yàqin ci ñun <laughs> noonu digganteem ak ñun noonu la deme nee na lépp sëriñ bi la nee na waxoon na ne sunu ànd bii noog moom. du ñoom du man. na du nun du moom. nee na pàgguteefu sëñ Tuubaa rek la. nee na sëñ Tuubaa lu mat a fàggu fàggu na ko. tey jii ak ëllëg. jubóo na ceeg boromam. nee na jubóo na ceeg boromam. buñ ko gisee buñ ko gisul. nee na buñ ko gisul buñ ko gisul. na buñ ko boromam a ko nekkal. nee na ko nekkal. buñ ko wooyee. mooy wuyu. lépp noonu la na lépp noonu la demee. li ci am solo rek. nee li ci am solo nag. ñu xam nu xam ko. di ko jéem a xam waxtu ne di ko jéem a xam waxtu ne. du du du doomu aadama mën a xam sax. nee na du lu doomu aadama mën a xam sax. waaye ah, am na doomu aadama am na lu ko yàlla cëralee. waaye nag doomu aadama am na ko yàlla cëralee. la mu ko cëralee nag. ko cëralee nag. na ca def kem kattanam ca def kem kattanam. ngir xam sëriñ bi ngir xam sëriñ bi. am nañu tawfeex ba àgg ci madrasa moo desoon ci li nga xam ne wone woon na ko. ci li mu mënta ñàkk. loolu nu am tawfeex rek yem ca loola loolu loolu moo tax gisuma lenn gisuma dara ci saayis lu dul nag ñu ko jóg ci xam-xam ma maanaam jëm jëmal ko nag ci madrasam boobu moo xam ne buñ ko buñ ko ko deful noonu doomu aadama yi yàlla dana ko defal dana ko defal ci ah, kon loolu tàlluwaay bi moom. Mhm. mooy jóg ci xam-xam bi. ñun ñëpp am doom wala nga am jabar wala nga am njaboot. Mhm. nga góorgóorlu waaw jëme njaboot gi ci njàng njàng njàng xam Ba bii moom ko dénk ak ko ñàkk ak i nattangoom ñi mu ko nga xam ne kenn sonal leen ñoo sonal seen bopp ci ci xam-xam. mooy suñu muy ndawal ñu tudd ñi ñu jàng ñu jàng kenn sonal leen ñoo ko ñoo yàlla dañoo am tawfeex. am jom amu fit di jàmbaar am dogu teg seen tànk seen siraatal mustaqim ñooñu sëñ mu ni mu ni mu ni mu fàggoon dara ji rek ni la fàggoo ñooñu ñoo ànd ñoom pàggu tefa sëñ Tuubaa rek lañu mu nekkoon kàddu yi Serigne Mountakha Mbacké Bachir yi nga xam ne yëkkati na ko ci euh, exposition bi nga xam ne moom la doon visité di les grandes bi waa Daara Hizbut Tarqiyyah taxawal ba léegi ci fànn googu sax la ñuy des ci exposition bi ndax ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre demoon na fa nemmeeku exposition bi muy nekk liggéey bu am solo mu ànd ko comité d'organisation bu màggal gi ak jëriñ yu bëree bëri yoo xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ñoom nag ginnaaw nemmeeku gi ànd kooku nag commissaire des expositions muy Serigne atu Diagne sëriñ euh, Bassirou Mbacke Abdoul Khadir moom it rafetlu na bu baax a baax seenu taxawaay waaye li nga xam ne noonu la ñuy taxawoo ci lu jëm ci wàllum xam-xam ci li nga xam ne moom moo di màggal gi ñoo na kàddu yi sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir di bég a baax ci jataay bii di ko rafetlu di teg nuyoo ci loxol sëriñ Atou Diagne mi nga xam ne mooy jëwriñi daara ji ak mboolem ñi ci nekk ci ginnaaw yëpp. ci ndigalul Cheikh mu Mountakha mi nga xam ne mooy fii Serigne Touba tey ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ci ndigalam lañ fi jóge incha allah fas na yéene balaa liggéey bi àgg sax mu ñëw ubbil leen fa ñaanal leen ci waaye ñu jiitu ko fi ci ndigalam ngir liggéey bi mën a tàmbali ndax ci ndigalam lañ ko defee di leen sant bu baax di leen gërëm. ci seen yitte ak seen positif ak seen taxawaay bu rafet ci yoon bi ak tawféex ju rëy ji leen Sëriñ Tuubaa ci biir yoon bi muy ci ay fànn yu baree bëri boobu ba léegi ci leen nekk di ci waxtaan di ko yéem di ci yéem mbirum sëriñ bi ci yéen ndax képp ku fi ma a nekkal Sëriñ Tuubaa rek sant na leen gërëm leen ci seen taxawaay tàmbule ci Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne ci nekkam la sosoon mu joxoon ndigal ñu taxawal ko mu ànd ak yéen ànd bu rafet boo xam dara desu ci tàggat leen ci yoon wi wax leen li ngeen war a defee ni ngeen war a doxee ci ki fi nekk di Serigne Touba te wàccu leen ko ba nëgg ni ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadir li diggante bi gàtt gàtt ñëw na bu ci yéen siyaare si leen wax leen kàddu yu siyaare yam leen waxoon yaakaar naa mi ci télévision yi ba nëgg ni sëriñ Saliou yi tam bi mu agsee lépp lu ko mos a itteel wala mu ñor ko rek ci seen loxo la ko teg dénk leen ko te mosu leen dénk dara ba am ci lu ko naqari doy na ci sëkkinam bayit yu mu daa wax sëriñ yaatu isa ay xasatka kurubul ida fanab bi ila abin summa nam doy sëkk seere ginnaaw wutam bi Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké ñëwee ngeen def kon da defoon loolu Sëriñ Tuubaa ci taxawaay ak position ak yitte fu mu mas nekk fu mu mas jëm ngeen jiitu fa tànt dafa jàng fay xasida toggaay la indi di taxaw kër gi làq ngir ba moom itam mujj gi lépp luñ ko indi luñ ko indil tam yor ko rek yéen la koy itam ak Cheikh ñëw na ngeen defoon ak kilifa bu njëkkee ngeen ànde ko moom noonu ci ginnaaw guddeeg bëccëg di ko liggéeyal lu ngeen tàcc ngeen tàyyi maa ngi koy wax suñu Bachir léegi daana leen seeral ne li ci yéen mooy way gi ndax nit dana tàmm lu baax sax. te du ko àggale waaye way gi ci yéen moo ko gën a jaaxal kon moom itam ngeen ànd moom ànd boo xam dund naa ko xam ci lu bari ginnaaw bi itam Cheikh ñëw moom itam da ngeen defoon njële ngeen defaat ko te moom mu am ci xaasi bu xaas ji mooy ba ngeen tàmbalee liggéey ba léegi ni moo ko ànd ak yéen. addu yi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir yooyu moom la ñuy tëjee xibaar yi nga xam ne. moom lañ jagleel màggal Touba édition 2019 dëppoo ak atum 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam santaat leen bu baax gërëm leen ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun incha allah bés bu yàlla sàkk da ngeen am xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba lépp rek ngir euh, mbokki taalibe yi ñu ànd ak ñoom ñuy mën a xam li xew ci bërëb sell bi laataa ñuy dem ci màggal gi santaat leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf